waay fii ah, original neexal bu te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi fay say facture ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy daw leen gaaw consulter suñu site www point Eric Favre tiret nation point wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu Corniche Ouest bi salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi suivre Lutte TV ñu ngi leen di kontaanee bu baax den wax ngeen wéyal di abonné wu di aimé di partagé da ci am solo ñu ngi leen di bëggee bu baax a baax kii ñu toogal nag mooy Mbacke Faye kenn du ko présenté si làmb ji ñu fekk ko fii si place su Modou Baye Fall daje bi si combat am digganteem ak kii di Sokh bu ndaw waa Alburax taxawal ko gars yi duñ def lu dul dañ koy bàyyi mu nuyoog yéen ñi ñuy suivre rek ñu daal di dugg si waxtaan bi Sampa ñu ngi lay si. waaw Badara ñu ngi lay fay. bisimilah. sant waa parcelle 1 ba 26 rawatina suma waa dëkk waa ceeb maa leen sant ñëpp di gërëm ñëpp di gërëm képp koo xam ne rek yaa ngi bëggee Mbacke wala yaa ngi jàppale Mbacke maa ngi lay nuyu di nuyu fi ma fekk nii place Mour Baye Fall ñu koy sant la grand promoteur. waaw du nuyu tamit saa Touba koo xam ne kenn la si man maa ngi koy nuyu baax waa Touba waa Mbousobé ñëpp waaw du nuyu waa Diof yor waa Fatick waaw maam Diène Aydara Cheikh Diouf xam nga du nuyu suma am di jàmm yëpp daal. waaw doomu mère Wuli Ndiaye di wax suma yaay Wuli Ndiaye joyeux anniversaire xam nga happy birthday to you di ko souhaiter joyeux anniversaire di ko ñaanal fan gu gudd wér ak wér la suma yaay Wuli di ko ñaanalaat bu baax di ko wax xam nga yàlla na ko dund ba koy fekkee ati ati ati at ci barke alxuraanu karim waa du nuyu di dem ba défoncé di nuy xam nga sëñ maam waaw borom moteur yi maa ngi koy nuyu bu baax di dem ba mars mi mars caaroy xam nga maa ngi koy nuy bu baax daal mu caaroy sëñ maam. Mhm. daa mel ne instant yaa ngi waajal soq de. waaw maa ngi waaj rek waaj bu ndaw affaire moom des na moom mais ñi ngi waaj rek lu ndaw rek xam nga waaw di ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu si jàmm rek suñu borom defal ma ndam quoi waaw parce que combat bi défilé quoi dama ko jël ñëpp ne ma waroo ko jël mais li man ay xale lañ dañoo war a mayante xaalis waaw mais li tax ma jël ko man xam naa ko waaw te fi ma fekkoon moo tax ma jël ko waaw moo tax xam nga li ñaan yàlla rek yàlla mañ tara fekkee ba le jour ji incha suñu borom defal ma ndam quoi waaw. Sokh mu ndaw duggoon parcel am nu mu demee. mu ñëwaat parcelle ba bu bëri waalee loolu loolu du di si du métti si yow. non non demeewul noonu moom tamit xam dugg na parcelle am nu mu fi def fu li laa làmb la rek waaw moom la laa bëgg sax man waaw mu ñëwee noo xam ne xam nga ñëpp dañ naan pare na man ma ñëwee noo xam ne ñëpp dañ naan pare na waaw incha allah ñu def suñu borom may ma dam ko waa ci kawam. Mhm. ana combat bi ba muy taxaw naka la demee ndax dañ la woo rek proposé la kii di Sokh bu Ndaw rek nga accepté loolu nan la dem. non man dañ ma ne ma Sokh bu ndaw lañ bëgg nga bëreel Aziz Aziz moo bëgg Sokh bu ndaw ak Mbacké parce dafa bëgg dër bi Pikine parcelle ah ma ne ko laaj leen ñoom parce que man boo ñoom boolewuñ ma noonu man boolewul boolewuma leen woon sama plan de carrière parce que xam nga ñoom tamit ñu décidé Matar ñu woo manager Matar Ndiaye dañuy bëri ak ñun waaw ah, tamit ma def ñu proposé man tamit du ma def lu dul jël ñu fay ma lu ko jar ma jël ko waaw loolu rek de mais man moom wax dëgg yàlla Sokh bu ndaw ak Sokh bu mag ñoom bokkuñu woon sama plan waaw bokkuñu woon ci ñoom man dama ne woon du ma bëre ak ñoom quoi waaw. da nga ne bokkuñu woon sa yoon pourquoi nga ne woon boo bokkuñu woon sa plan. waaw parce que maanaam soxu maa moom xam nga euh, gëj nañ gisee gëj nañ déggante mais dañoo amoon benn affinité boo xam ne xam nga waaw yàlla def ni xam nga moom mu may waaw mu nekkoon su moom fu ma fekk ñuy waxtaan conseil waxtaan maag moom ñu seq lu bari daal waaw moo taxoon quoi waaw moo tax. soq daal sa gaañ la woon. waaw sama gaañ la woon quoi. yaakaar woon ne di ngeen daje si làmb. mooy yaakaar woon ma dinañ daje ma ak moom quoi ci làmb mais làmb moom mooy boole ay nit quoi waaw di profité occasion tamit xam nga di nuyu waa parcelle 100 pour 100 PA bi yëpp waaw ma leen bëgg ku ci mel ni suñu patron Modou Lo maa ngi koy nuyu di nuyu Petit Lo suma rakk xam nga Franc Goro Sock Dame Sène suma waa équipe yi ñoom Lamine Sène Diegane suma papa xam nga Dame fii topp maa ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ndam suma mag suma xarit Pape Socé gars yëpp daal waa écurie Rock Énergie staff Rock Énergie yëpp xam nga suñu coach Pape Mbaye suñu papa grand laat conke sil waaw grand euh, bas waaw si ñoom mais dañoo gis ne kii euh, euh, Mbacké pourquoi waa parcelles yi dañoo dafa mel dañoo yëpp waa Pikine yi de waaw <laughs> làmb la rek làmb moom mënul weesu làmb quoi làmb la làmb moo ñu boole ñu ñaan yàlla yàlla may ñu tarak fekkee rek bala jour si incha allahu rek xam waa dañuy ñaan yàlla yàlla mooy ñu tara fekkee ba lu suri suñu borom defal ma ndam quoi parce que maa waaj baax ma samay mboq waaw di wàcc lépp incha allah rabi lépp lu mbër di lax lépp lu mbër di làmb di laaj dinaa ko def incha allah te maa ci parcours waaw. bu baax a baax. waaw gis naa ko mbër la rek comme mbër yi waaw mbër la rek moom nee naa ne li ñuy gën dem ñu gën xam kuy Mbàkke instant gars yi xamaguñ ma li ñuy gën a dem ñu gën ma xam quoi waaw man saa bu ma ñëwee rek mu ma sumee ko loxo day dar gémmiñ waaw gars yi xamaguñ ma quoi. waaw mais ba ñu ma xam ma jeexal leen. waaw. lan nga yaakaar ne loo jàpp ne instant yi moom moo war a mën a daan kii di Sokh. waaw bëre wala dóor rek. waaw bëre wala dóor rek looloo koy jeexal de bëre wala dóor. waaw loolu loo si fa yéene de. lépp laay andi incha lépp lépp. taxaw dóorante ak moom. lépp rek lépp incha allah lépp lu mbëri laaj daal dinaa ko andi incha ne am na ñu naan Mbacké Faye est-ce que warul yokk rapidité combat bi bëree ni muy bëree est warul yokk si liggéey li muy liggéey rapidité bi mu mu gën koo yokk lan ngay tontu si la. waaw man sama combat yëpp dafa gaaw pédub dib la mais man combat bi dafa doonoon sama diggante maag rëm dafa doonoon combat boo xam ne gars ñëpp dañ mën a waxoon teel xam nga dalal moo tax ma ñëw bëree noonu quoi waaw parce que lamb def tamit du man quoi yàlla la yàlla mooy may ndam ma ñëw def noonu suñu borom defal ma ndam quoi waaw. naka nga gisee fan yi dëkk bi nu mu tàngee nii rey yi fii jàppal bàyyil da ngay gis ñu rey balaa ñuy àtte ñooñu sax nga dégg beneen fël na déggal mbuur jàppal Grand Yoff nan nga gisee loolu xew-xew yi. waaw dëkk bi li waa métti na trop nag dëkk bi kay doy na waar trop trop ak yeneen xam ma nit daal ay rey rey fii rey fii rey fii quoi loolu moom yéeme na trop quoi mais dañuy ñaan rek yàlla yàlla suñu borom mën a saafara mu saafara parce que sécurité bi xam ñi ci biir kër dañ leen fekk rey leen xam nga daal yàlla yàlla na yàlla saafara lépp daal waa ñi nga xam dañ leen rey tamit suñu borom xaaral leen àjjana firdawsi xam nga di ñaanal seen njaboot yi fi des xam nga ñu mën a muñ di leen julli di leen ñaanal waaw parce bi daal moom fi mu toll nii moom metti na trop trop trop di waxaat soxma suñu rek ñu gën a focus affaire yi sécurité bi xam nga ñu jàppale parce que affaire yi daal metti na trop quoi ku waxul xam nga wax lee quoi parce que metti na trop trop trop doo mën wax bi leen yàlla na yàlla xaaree àjjana quoi ñu génn àdduna caabi féete ginnaaw tamit suñu borom génne leen ba leen duwaloon ni ba leen ci dellu si quoi. naka nga jàngatee kii di deewu Aziz Dabala ak Waly nekkoon si biir kër gi ñu fekk leen ñu tëj leen yow naka nga ko jàngatee en tant que lutteur. waaw métti rek di leen ñaanal rek parce que loolu moo fi nekk quoi xam nga di bàyyi di wax tamit yoon gars yi nañ bàyyi yoon def liggéeyam quoi. waaw bu ñu tuumaal kenn bu ñu yàlla moo xam ak yoon li muy def xam nga te suñu police Sénégal bi xarañ nañ xam ne xam nga lépp lu bëgg xam dañ koy xam. waaw nañ bàyyi def yoon def liggéeyam ñu bàyyi tamit xam di accuser nit ñi di wax si nit ñi daal nañ bàyyi yoon def liggéeyam waaw li ñaanal ñooñu rek yàlla xaaral na àjjana quoi loolu rek wax dëgg yàlla loolu laa am lu ma ciy wax quoi parce que mënu ma ci avancé parce que man fekkewu ma te xaw xaw ñooñu mun naa ni musu musu mu leen sax gis quoi waaw mais ñaan dama leen di ñaanal rek en tant que jullit ak jullit yàlla na la yàlla xaaree àjjana quoi. nan ngay mujjee wax kii di sa adversaire muy Sokh bu Ndaw waaw li ma koy wax mooy mu waaj rek di ko ñaanal yàlla yàlla may ko tal ak fekkee rek waaw wax yàlla aw ma leen lu ma koy wax ko ñaanal yàlla yàlla may ko tal ak fekkee ba jour ba incha allah suñu borom defal ma ndam quoi waaw. dañ ne kàddu yi looy tàggu. waaw di nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di nuyu suma yaay Boli Ndiaye maa ngi koy nuyu wax baax di nuyu sama papa ak sama yaay ñëpp sumay mag madame Dia suma mag maa ngi koy ñaanal yàlla yàlla may ko tal tan xam waaw madame maa ngi koy ñaanal bu baax suma mag la suma xarit la suma rax yëpp xam nga ñoom maami papa ja mama soxna ak suma xarit yi ñoom Laurent Ousseynou mbay Bokar suma xarit xam nga ñëpp am njaago waaw suma yaay Elen Sarr tamit maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko ñaan sant suma waa dëkk waa ceeb di ñaanal suma yaay ndey suma yaay ta ndey Ndiaye waaw ndey Ndiaye suma yaay ndey maa ngi koy ñaanal bu baax di nuyu suma papa tamit Sidi Ndiaye ak imam Diallo waaw suñu imaam koñ bi maa leen nuyu waaw du woo nuyu waa koñ bi yëpp daal gars yi koñ bi yëpp bàyyi ma kenn ku mu lim juum xam nga soxna tamit maa ngi nuyu bu baax soxna Nafi maa ngi koy nuyu bu baax ak goro bu mel ne asufa am nga soxna waaw am naa soxna tax depuis kañ la eh, fan yi fan yee jàll waaw nuyu tamit xam nga suma jabar du nuyu ay magam asu fay kuro fay xam nga nuyu suma goro Pa Wali fay mat leen xam maa ngi leen nuyu Fanjaay ñoom ñëpp daal bàyyi ma kenn waaw ñëpp daal famille fayen bi yëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu tamit seen mag mañu manu Ndiaye xam nga maa ngi koy nuyu bu baax di ko sant di ko gërëm waaw du nuyu ñëpp daal surtout Assa Faye xam mention spéciale kooku sama lépp la moo kura maa ngi leen di nuyu bu baax asu yaag kura maa ngi leen nuyu bu baax di leen sant di leen gërëm ak suma jabar yëpp maa ngi leen sant waaw du nuyu tamit Modou Baye Fall mi nga xam ne xam nga suñu lépp la wax dëgg yàlla moom yemul ci diggante di ñu tëggal làmb moom wax dëgg yàlla lu ne la ñuy waaw di ko nuyu tey maay palaasam mais maa ngi koy sant bu baax di ko nuyu di ko gërëm di nuyu ñëpp daal di sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw. mi noonu am na solo ñu ngi lay kontaanee bu baax a baax di bëggewaat gars yi doon suivre fii si Lutte TV di wax euh, jërëjëf euh, original KPI Eric Fabre national jaa ngeen jëf gars yi ba beneen yoon ak beneen invité fii si Lutte TV jaajëf. ay bopp te am original pur jus de fruits. Sénégal ka fay kan gi ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy taw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre tiire nation point wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ñoo ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu corniche ouest